leader njiit la bi nga xam ne day am ay xalaat yu rafet ak ay technique yi nga xam ne da koy jëfandikoo ngir ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw am mën ko nangul moom nag faw rek mu am ay qualité intellectuelle ak morale te itam mu am doxalin bu rafet waaye nag doon ab leader yombul ndax faw rek nga am parcours bu gudd te itam mën a supporter ay jafe-jafe yu bëri leadership politique nag bokkul ak li ñuy duppe leadership social ndax leader politique la bi nga xam ne day jiite ab formation politique ngir jiite am réew wala sax desandi ci nguur gi loole nag teewul ba léegi mën nañu doon ab leader fekk duñu am yenn qualité intellectuelle yi ndax leadership mën nañ ko itam fekk ci nit ko am charisme te itam am njàmbaarte di jël ay dogal bëri na ci ay chef de parti réew mi wala sax ñi nekk ci société civile yi nga xam ne seen leadership moo des présidentielle 2024 yi ñu dëgmal nag candidat yi danañ jongante itam ci wàllum leadership candidat yi dana bëri suñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne déclaré nañ seen candidature ba léegi sax dem nañ ba toll ci fanweer ak juróom ba tax na faaw rek ñu am ay qualité leadership yu wóor ndax opinion publique nationale ak internationale dina leen xaar ci fànn woowee ñii di voté itam te nga xam ne bokkuñ ci benn parti wala topp ñu benn candidat li nga xam ne ci lañ nar sukkandikoo ngir fal président de la république mën na itam dépendre ci am ay xalaat yu rafet ak itam discours bu jaar yoon candidat bi dafa war a wane kóolute surtout nag ci ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu bokk na ci critères yiñ ci tàmm itam ay xalaatu doomu aadama yu bëri ngir mën a convaincre électeurs yi nga xam ne bokkuñ ci benn parti ak itam ñii di média public ak privé yi